ba gisuma dara bu ma waxee rek bu ma a téye. naa la ko wax. bu ma kenn téye. nuyu la Cheikh. voilà man maa ngi muñ ci muñ laa toll moom joxe na temps ma la man kañ man kañ nee eh. man nu ma ci boole surtout nag wàll bi ma nekk ci sport. man maa ngi xaar rek. dégg nga man daal man maa ngi xaar. noonu la bu ma xoolee nag am na àpp. Mhm. am na àpp de mhm. bu jotee. Mhm. ma ne eh. xam ngeen dara wala xamu leen dara. maa la wax bu may wax nag bu ma kenn téye bu wax. <laughs> te loolu moom gaaw nga ci lool. waaw alors tey Cheikh Tidiane dañuy statuer ci wàllu football professionnel. Mhm. Euh, file ci euh, Sénégal contrat yu joueurs yi di am nag daanaka euh, footballeur yi dafa mel ni président dañ leen di tayle. ah waaw <laughs> c'est que c'est que dama kontaan ni nga ko ni nga ko ni nga ko faram-fàccee. Mm. ci olof. ñu <laughs> ni nga ko defee ci olof. noonu la noonu ko bëggee woon waaw noonu laa ko xam nga maa ngi doon naan waa man maa ngi bind waaye xaw ma maa ngi koy bind ci tubaab waaye xaw ma dégg nga mais wax nga wax bi. Mhm. xam nga dañu nekk ci benn euh, dëkk boo xam ne dafa bare bare loo xam ne dafa jaaduwul. Mhm. ba tax na tey jii il faut ñu def benn gëstu ci. contrat wu joueurs yi ci le football professionnel. dama lay wax dama lay wax damay ubbee pour wax la ne ma ne la fii dañu am championnat football professionnel. mais c'est que de nom. maanaam li def nii ce n'est même pas du semi-professionnalisme. waa amul ba tax na nag loolu moo tax. Mhm. joueurs yi seen contrat. joueurs yi dañu nekk à la merci euh, ci maanaam dirigeants yi. lu leen neex ñu def joueurs yi. joueurs yi itam ndeysaan bañ a euh, kii am problème ci euh, club bi bañ a ñàkk seen place. bëgg carrière bëgg carrière très bien dañuy ne dañuy noppi. noppi boobu nag mu ngi leen di rey ba tax na ba ëllëg ci biir bu ñu demee ba nga xam ne nga xam ne pour jaayee joueur bi la foofu nag lañuy am problème. problème bi ñoom. duñ ci rendre compte léegi. mais bés bu ñu demee ba toj Sénégal ñu war leen transférer bu ñu xoolee ba xool foofu la ñuy xool. xam ne que ñoon ñi ñu ngi doon nangu loo xam ne mu ngi leen doon rey. c'est ça aujourd'hui le problème tey jii ma jox benn exemple dégg ngeen fi benn coow bu am temps yi pa temps yi rek diggante Tëngéej football club. jaraaf. ci benn joueur bu ñuy wax Koyte. mu jugee Tëngéej muy dem bi muy dem di signé ji jaraaf waa Tëngéej ne ko waa Tëngéej bi ne ne non il est toujours sous contrat avec Tëngéej football club. Hmm. le gosse génn réagir ne man sama contrat jeex na waaw te ba léegi xëccoo boobu mu ngi am. ay Tëngéej ñu ngi taxaw fu ñu taxaw le gosse ak jaraaf ñu ngi taxaw fu ñu taxaw lan moo tax Tëngéej di taxaw fu mu taxaw lan moo tax jaraaf di taxaw fu mu taxaw la ah mais c'est le contrat kon ban contrat moo baax <laughs> ban contrat boo baax ban contrat la ñu yore bu baax ban contrat ban contrat moom la euh, fédération sénégalaise de football Euh, maanaam euh, kii euh, nangu c'est ça aujourd'hui le problème loolu loolu bare na fi loolu am noonu noonu da dégg fii ñu naan le joueur ah Linguère jël na benn joueur waaw gars yi bind na le kii gars yi bind gars yi gars yi ñu ba Seydina Omar Ba a signé un contrat de deux ans à kii à la Linguère ngir toog rek ba si rek waa Guédiawaye football club foofu mu nekkoon ñoom ñu génne rek rek rek bi ñoom ñu ne génne laa des dañuy génne ci euh, kii ci WhatsApp yi génne la contrat ne kii mu ngi dem ne kii. am na contrat am na contrat contrat jeexagul fii caabi gis nga problème boobu di am. tey jii tey jii le bi nga xam ne moo gën a fës Amara Diouf. bi nga xam ne bu euh, génération foot man bi ma koy wax fii mercredi petit déj mais après bi ma génnee bi ma toogee dégg naa ci ay lu nekk ba tey jii on m'a appelé de France ñu ne ma xoolaatal lan la booy bi signé te man maa Touré a dit dans notre journal d'hier man maa ko interviewé moom mu ne Madi Touré moom moo wax ci sunu euh, journal rajo mu ne le gosse est sous contrat jusqu'en deux deux mille vingt huit moo ko wax de. jaraaf. Euh, à génération. waa léegi. waaye ki ma woo tey jii woo ma de keneen moo ma woo de ki ak ki ma woo tey jii ñoo méngoo lu ñu wax ñoom ñoom nee nañu xoolaat leen contrat bi est-ce que contrat bi loolu la. <laughs> mais mi da ngay jaaxase. yow yow da ngay jaaxle. mais loolu nag moo am dans notre football professionnel. mooy parce que il y de ces choses yoo xam ne saa ça mu ngi am ci biir. mais xoolal kenn du ci rendre compte mais y a que président. loolu tax joueurs yi ndeysaan bëgg football rek. tax na bu ñuy ñëwee parce que xam nga dafa am ay présidents yoo xam ne ils sont tellement malins. ci signature de contrat bi gis nga booy signé xam nañ lay naan koo ñëwal dañu ñëw rek ne la eh waaye Seydina. tey da ngay signé. waaw tey bon euh, xoolal. contrat de euh, prime signature 5 millions un gosse de sénégalais. nga ne ko prime de signature 5 millions. day fecc. du xool sa contrat bi. du waaw <laughs> ah, merci du xool bu baax li muy signé et puis bu signé ba pare dañ ko wax a jox benn kii bi. trois exemplaires trois exemplaires te loolu moo am trois exemplaires mais mi gars yi dañoo def doy waar ba nga xam ne maanaam pour mu leer que lii nga signé yow. boobu lay utiliser ëllëg dara leeru la ci. mais mais mais euh, Cheikh euh, euh, joueurs yi quand même dañu am ay ay promoteurs xaw ma nan la ñuy tuddee. ñu leen ñu leen àndal ay agents. ay agents waaw léegi lan mooy loolu. waaw rôle agent bi su fekkente ne dafa am arnaque bu ñu nemmeeku. voilà très bien foofu nag foofu la njëriñu agent am mais. un joueur ici dans le championnat. am na notre championnat Sénégal bi mhm. joueurs yëpp bu ñuy commencer bu ñuy nekk man je conseille aux joueurs. damay conseiller joueurs yi. bu ñu commencé nekk bu ñu nekkee cadet ci équipe bi. nañu ut agent. agent bi wax ak club bi ne ko ana contrat parce que quand on dit que Amara a signé un contrat bi muy am onze ans xoolal onze ans ba léegi. mu def cinq ans ci club ba. waaw génération. tu as vu. léegi nag kon ne nag à de foofu mais malheureusement. fii agent yi. boo nee kii il faut que ñu xam ne que yow mën nga agent agent yi pour ñu waxee ti joueur Sénégal yi nii nii nii pour ñu ne non il faut ñu ñu leer leen ne que kii de mën naa ci lekk xaalis. Hmm. waaye bu dee léegi rek ah jour joueur gi nii nii. du ñu accompagner joueur. maanaam du ñu leen accompagner waaw du ñu leen accompagner. alors que je euh, France wala yenn wala wala sax étranger. doo dégg doo ci ku jël xale bu ndaw. waaw ba 9 ans encadré ko ba mag. doo dégg la ma la dañ lay suivre. Mm-hmm. dañ lay suivre loolu nag moo amul Sénégal agent yi xam la ñuy def. Mm-hmm. dañuy xaar ba produit fini ñoom pro produit fini la ñuy xaar. Mm-hmm. ah. mu caar rek voilà Seydina Omar Ba toj na fii. ii mu ngi toj jaraaf aca gars yi ñëw na dugg intervenir mais du ñu intervenir quand le gosse uh-huh. waaw euh, bu ba nekk euh, kii euh, xale nekk cadet wala junior wala benjamin mm. non non ñoom c'est c'est pas leur problème mais justement par rapport à ça est-ce que mm-hmm. juridiquement c'est dina doon loo xam ne dina valide parce que même en termes de contrat et mm-hmm. autres am na benn âge légal boo xam ne moom nga mën a am pour mu valide mm-hmm. sinon il faut nga am benn tuteur euh, wala koo xam ne dina la mën a xool donc est-ce que à l'âge de 11 ans bi nga wax noonu finalement est-ce que doon na lu lu luy valide 11 ans xale bu am 11 ans. kooku euh, warta liggéey de. ah man warta liggéey de 11 ans. non formation. c'est la formation. non non non signature par rapport à la signature bi ñuy wax. dañuy wax même ci en termes de contrat et autres il faut nga am benn age bi. si je no trompe. sinon il faut au moins nga am benn tuteur ba ci sax en terme d'héritage et autres. Mm il faut nga majeur nga nga am majorité bi. donc mm par rapport à ça est-ce que amul des règles yoo xam ne nii régir nañ ko par rapport à ça. non si non si am na am na xam nga xam nga ci football. Mhm. Euh, centre de formation bi koy jox. Mhm. wala club bi ñu koy jox. day signé ak yow parent bi. Ah, benn protocole. Mhm. moom la waa kii démb da ngay gis démb. Euh, ci euh, ci réseaux sociaux yi. génération foot génne benn proto le protocole bi koy lié ak ses joueurs. ses ma xale bu muy nekk. à 11 ans. à partir de 11 ans. xale bi boo ko jaay yow boo jëlee léegi sa doom. yóbbu ko génération foot mu def test. ba génération foot ne ah baax na. léegi nag foofu day signé ak yow protocole. d'accord ce protocole boobu boobu moo légal. moom ëllëg parce que moom la bëgg a yëkkati ci affaire Amara Diouf. dans ci protocole d'accord bi ça a été clairement dit que moom moom mi centre de formation wala club moom mooy gérer image yu ak lépp xale bi ba. dégg nga léegi nag bu fekkee ne nag am na keneen ku ko bëgg utiliser nag dangay ngay hmm. fay dix milliards. Hmm. dégg nga loolu moom moo nekk ci li nga xam ne li la moom moo kii loolu moo tax pour revenir un peu pour ñu accès un peu suñu kii ci le problème aujourd'hui mooy que tey jii c'est au joueurs Lamine Mboup moom mii nga xam ne moom mooy kiiwu joueurs yi. Euh, ni ñu koy waxatee sax euh, maanaam euh, waa mooy seen kii mooy seen xaw ma xaw ma syndicaliste xaw ma loolu la ñuy wax xaw ma mais moom moom sax dañ koy duut moom sax dañ koy xam nga Lamine boobu toog de fii benn jour Lamine boobu ma gis ci presse bi ñu jël ko yow comment ça fait yow yow yaay défendre joueurs yi waa fédération jël la dugal la ci benn euh, dugal ci benn commission. Mhm. loolu moom mooy noppi. ah waaw noppi. <laughs> voyage bu amee gars yóbbu ko coupe du monde 2018. am indemnité. Ah, ah, ah waaw est-ce que waxati na. loolu dafa loolu conflit d'intérêt loolu. Ah, voilà loolu laa loolu wax dama ne la gars dañoo muus fii Sénégal dañoo muus il faut que il faut que loolu mu arrêté mu arrêté mu dakk mhm. parce que ces joueurs la ces joueurs là ndeysaan ils ont peur man am na. man damay toog ba si benn jour woo ma ne ma toog naa 4 mois fay ñu ma sama salaire. waaw bu ko yuuxoo gars yi daax gars yi kii ko entraîneur bi dootu ko jëlati duñ la dàqee nii de entraîneur bi moo la dul dugalati ci équipe bi sa carrière mën na fa yàqu loolu la joueurs yi di ragal dans cette affaire la donc aujourd'hui ce qui lii am ba am mooy mooy que il faut que ñu xoolaat contrat joueurs yi te joueurs yi man li ma leen di conseil mooy leen benn affaire moo mën a régler lii xam nga mooy leen. Mhm. ñoom nañu jéngu fipp booloo tous les joueurs toog parce que euh, Lamine boobu nee na ma day dem wax benn joueur mais joueur bi du ñeme wax. Mhm. il faut que ñoom ñëpp ñu toog booloo. waree seen doole. ne ñun bu dee affaire bi leerul ñun du ñu football. Mhm. comme comme comme comme kii comme entraîneur yi. entraîneur yi sax dañu am problème boobu. seen contrat. deux fois da gis koo xam ne toog six mois duñ ko fay. am na xam ba léegi ñu ngi daw seen ginnaaw euh, euh, kii président ba léegi ba heure bi ba heure bi pendant quatre ans cinq an parce que et puis amooy amul foo koy jooyee waa léegi waa parce que euh, kii maam xam léegi wax na. Mhm. mais tey ji man maa ngi joué Jaraaf. ma joué Jaraaf fayu ma 4 mois 6 mois fan laa koy jooyee fan laa koy jooyee tribunal. Mm. yóbbu leen tribunal da ngay mm-hmm. noonu di yóbboo tribunal <laughs> parce que amul dara loo xam ne mën nga leen yóbbu loolu moo tax ñoom dañuy def lu leen neex mais nag ah loolu yëpp nag li ko ënd nag loolu yëpp lu ko ëmb nag lenn kese la. Mm-hmm. mooy c'est le modèle économique de nos clubs le modèle économique de nos clubs ne permet pas aujourd'hui de prendre un joueur de le faire signer un contrat en bonne et due forme nga jël contrat boobu jël ko yóbbu ko inspection du travail nangam nangam euh, président yi ah nit la moom kese moom mooy poosam mhm. poosam lay fay euh, poosam lay dundalee équipe bi mhm. ne yow boo eh, bu jaaree yoon normal mu dem eh, fële ay inspection yooyu yëpp. Mhm. te yow nga boo ko poursuivre il risque d'avoir des problèmes. Mhm. <laughs> loolu moo tax du ko donc c'est le modèle économique de nos clubs suñu club yi ñoo war a changer nekk ay vrai club comme ni ñu ko waxee dans le cahier de charge de la ligue de football professionnel. Mhm. cahier de charge ligue de football professionnel kenn respecté wu ko au Sénégal. il faut que ñu dem ñu respecté ñu ne les contra bi lii la lii lii lii moo am. na ñëpp respecté. le contrat euh, kii euh, euh, cahier de charge bi li mu dafa leer dafa wax stagiaire temps lañ koy fay joueur temps lañ koy fay âge bi lii lañ lay fay lépp la wax mais ñi ko fi respecté barewul moi je dis notre football professionnel tey jii ñi respecté cahier de charge bi respecté ko à 100 pour cent déglu bu baax à 100 pour cent amul je défie quiconque dama je défie quiconque waa Ligue Pro nañ ñëw toog ak man club yi nañ ñëw toog ak man kenn respecté wul le cahier de charge à 100 pour cent. boo leen waxee xam lu ñu wax. Mhm. non àdduna euh, xaw ma lan euh, kii xëyul sottiwul. waaw waaw waaw ndànk ndànk la ñuy def nangam parce que loo exiger boo ko defee à 100 pour cent on n'aura pas de club de professionnels. loolu wax la. pendant ce temps yaa ngi dund ci kaw joueur bi. yaa ngi dund ci kaw joueur bi yaa ngi dund ci kaw entraîneur mhm. ngi dund ci kaw maanaam kii di fóot maye yi kii di defar maye yi ki koy paase yaa ngi dund ci kawam. am na fi benn am na fi am na na fi benn euh, kii benn mbokku njaago buy topp benn club fii ñeenti at fayu ko dara te moom mooy fóot maye yi. xoolal loolu rek. parce que dara respecté wuñu dara. ku yore nit faute maillot kese de yaakaar naa doo fay joueur. doo fay joueur voilà voilà. Donc, voilà li ñu bëgg a wax. faute maillot sax c'est que <laughs> <laughs> il faut visiter voyager et visiter. Euh, notre football. waaw loolu on dit on est champion d'Afrique ah euh, tout tout va bien. Mm-hmm. ça c'est de l'hypocrisie pure et dure naka la doom yow nga nekk ci benn mbir nga xam ne lii doxul yow nga ne dox na parce que gagné nga benn championnat d'Afrique benn coupe d'Afrique tout va dans le sport. te coupe d'Afrique aussi dafa war a am a am ay retombées ci club yi aussi quoi. merci. ana retombées yi. tey un club damay xaw a kii sax tey un dirigeant du comité exécutif wax nañ ko naa ko fi njëkk a wax mën naa ko njëkk a wax. mais tey jii loolu moo nekk kii bi loolu moo nekk journaliste yëpp léegi di koy reprendre. ba di wax euh, kii gars yi ñu koy soog a reprendre xoolal bi ma koy wax. Mhm. il y a de cela deux ans ma wax ne ma ne les euh, euh, les membres du comité exécutif chaque année ku ci nekk am na trois millions six cent. le club le club ci boppam club bi am un million déglu boobu. xoolal xoolal xoolal affaire club bi club le club amateur il a un million te club boobu moo tax ba FIFA ne Sénégal bokkal coupe d'Afrique bokkal coupe du monde kooku yow nga jël benn dirigeant jox ko 3 millions 600. et ces dirigeants là ces problème là que vous, je viens d'énumérer. Mm -hmm. là c'est à eux maintenant de ñoom ñu toog ci comité exécutif dinaa ci ñëw. duñ ko changer parce que mooy le. foofu laa dinaa ci ñëw nag. ci comité exécutif boo xam ne c' est que de nom. dinaa ci ñëw de seen comité exécutif bu football Sénégal c' est que de nom dinaa ci ñëw. billaahi naa ci ñëw parce que c' est seulement du tappale. ci. et d' autres informations et d' autres informations merci Jette Diagne. beaucoup de ci chronique ko tey amati na pense que euh, joueurs yi tey di remercier nañ la bu baax parce que cri du la boo xam ne da nga leen ko defal ñu ngi dund ci ay situation yu métti ci contrat yeeg yi ni mel te lépp si exploitation agent e. waa agent yi dirigeant yi wala sax euh, njiital club yi la loolu yëpp dinañ ci dikkaat incha allah jaajëfal la Cheikh Tidiane. son rendez-vous vendredi prochain. waaw kontaan lool. Mhm. waaw di leen di gërëm di leen sant yaan ñi di lool yéen jigéen ñi. merci ak blanc am sax. Mhm.